kan Mamadou Berté salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay gërëm ci teewaay bi architecte nga euh, te itam sax xam màcc ci wàllu urbanisme maanaam euh, bu ñu ko mënee tekki xam-xam bi jëm ci rëdd aw dëkk ba mu jaar yoon méngoog jamono euh, jiite itam parti bi ñu rassemblement des écologistes du du Sénégal ñu fas yéene mag alaaj Ndiogou Diène waxtaan yow mbënn mi njëkk est-ce que lii ñu gis samedi jàpp dimanche ni ndox mi def Sénégal ba jiri est-ce que lu jaadu la euh, nga baalu ma jëkk nuyu suñu mbokk auditeurs yi di marsawu ñi nekk ci biir mi nga wax di des na ci phénomène phénomène climatique exceptionnel exceptionnel lay doon parce que day fekk euh, boo xoolee sax fan yi ñu nekk weer bi ñu nekk du Sénégal rek am problème yu demee nii balaa moo ñëw sax fii dégg nañu neen dëkk yu mel ni Côte d'Ivoire bi dina noonu mu am yu tolloo yu tolloo kii ñi ñi gis ni tan yi li koy indi nag mooy nekk euh, benn taw bi dafay taw taw bu bare bare bare bare ci diir gu gàtt nga xam ne fa ñu war a jaar pour dem du ko mën def la cay problème nag mooy ndox ma des sa boor boobu euh, diir diir gu euh, ñaari fan ñetti fan c'est pas acceptable ci biir loolu nag la ñuy xool ne am bërëb yoo xam ne ci bi ak ci sax aménagement du territoire urbanisation ñetteel bi technique yi ñuy pour euh, régler problème mu euh, ndox ndoxu taw parce que ndoxu taw ak ndoxu assainissement bokkul ba yeneen mbir lañu boo ko te nattee nag teg ko foofu ah jaaxle dana am at yële wees naa ko wax sax jamono Ablaye Wade ñëw naa fii euh, di xultu di ak di ŋàññ nañ daan def di pompe ndox mi di ko doolaat ci ndox mi ren macha allah ak at yi ñuy nekk ci wax dëgg yàlla nag loolu amatu fi noonu Euh, tànn na bu baax a baax saafara am na ci waaye nag lañu def dafa doyul euh, boo seetloo sax am na bërëb yu daan am fitna yu tar ba ñu daan jël nit ñi leen yóbbu ci école ya bërëb yooyu ren macha allah fitna am na fa waaye tollootul na mu daan toll. am na nag luñ ci war a def pour dabu ko benn ñu nekk ca ndox ma dafa nekk euh, boo ko xoolee sax suñu mbokk wilaan am na problème parce que at bu jot na ko am. fekk nit ñaa ngi dëpp ci ci biir xur yi parce que xur du dëkkuwaay marché nag xur boo xam ne ci biir napp la nekk wala rek ñu defaral ko euh, bassin de rétention te loolu du technique loolu dabu la bu fekkee ne mën nga aménager ba nga xam ne euh, zone yu mel noonu kenn du ca dëkk euh, ma ngir yàlla nañ ko def moo yi gën. Hum, est-ce que justement du loolu mooy problème bi urbanisation bi maanaam nguur gi day seetaan nit ñi euh, dem dëkk foo xam te ne waruñu faa dëkk. après mu indi ay problème mais essentiellement loolu la boo xoolee plan d'urbanisme de de Dakar par exemple yu euh, début année quatre un peu avant cité Faye Sall fa mu nekk zone non aedificandi non aedificandi de woon dañu ñëw daganal ko def fay kër kër ña fa dëkk actuellement ñu ngi ci fitna sax ñu ko wax rek waaye ñu ngi ci fitna. moo dend ak ravin bi. Euh, waaw. Mhm. te ci biir lac la nekk. prolongement wu technopole la. ci biir ndox moomu la nekk la gaañu daan dal cité cité soleil la ñuy la leen di dal ñoom moo gën a grave dañ ko mënul wax amuñ fu ñu wax euh, am na tamit yenn boor fii booru Ngor Almadies yu demee am na boor yoo xam ne fitna nga fa de ndax zone non aedificandi yi la woon ñu seet boo koy boo koy euh, reconvertir def ko zone d'habitation am na jam motuwaay yoo war a dabu

ci jamono yooyu dimensionné ko fa taw bi nag bu ñëwee romb loola mooy plus exceptionnel ci la ñuy am nag débordement débordement bu amee mu am inondation mais inondation boobu waru fa def ñett ñeenti fi juróomi fan waru nekk ndax bu fekkee dimensionnement bu baax na bu taw bi doyee surplus bi dana yem ci niveau normal day écoulé wu. Mhm. fitna bi nag foofu la beneen bi euh, dem dëkk foo xam ne yoonu ndox la ak palaasu ndox la xam nga bu bu ñu infil bu ñu bu ñu defee surface yëpp infil euh, infiltration bañ ci mën a am yëpp étage ñu dër fu ne xam nga itam foog ñu méngale ko tolluwaayu réew mi ak poosu nit ñi euh, am jafe-jafe dëkkuwaay bi gën xëy na ñu bëri seen euh, loxo jotul seen ginnaaw ba nu am ko nit ñi bu ñu wut kër fu ñu am rek war nañ fa mënees naa comprendre ñu dem ñu dem ñu dem dëkk fa ndax dëkkuwaay amu fi je suis je suis désolé je suis pas d'accord sur cette approche là genre approche bobu moy indi li ñu dal tay légui nit ñi fu ñuy dëkk kon boba fi ñuy dëkk fi planifier pour ñu war fa dëkk aménager ko ñu war fa dëkk. est-ce que loolu doy ci ñi ñëpp taxaw est-ce que dëkk rek pour jox ñëpp. Euh, non du nonu du nonu xam nga planification euh, nous avons loolu plan d'urbanisme plan d'urbanisme buñ ko defee dañ koy def ay échéances projection urbanisation nag euh, baax na bu ñu def plan d'urbanisme ay enquête yu bare la données statistiques évolution yépp ci santé éducation euh, mouvement population yi ci euh, emploi ci ressources ak yépp ak euh, taux d'accroissement population ci boppam ci yooyu yëpp lu ñuy xayma gis ne lii day war nañ ko yokk moo tax ñuy def ay pôle yu bees lawal dëkk bi ba pare nag léegi li li ci ñànk li ñàkk ci loolu c'est que amoon na moment boo xam ne dañ bi ZAC yi mooy zone d' concerté des réceptifs pour ñu ñëw ñu capté leen dugal leen fa. parallèlement mu am parce que yàlla mayoon na it ma ci conseil d'administration fondation droit à la ville ma nekkoon ci conseil d'administration. fondation droit à la ville euh, restructuration yi mu def mu génne ñenn ci ndox mi teg bon genre approche moi mooy tax ñu planifier ko ba nga xam ne ku ñëw di nga am trame d'accueil nga booy mën a ba do doo dem ci zone d'inondation yi loolu daal solution ci côté euh, euh, utal nit ñi kër yi mhm. benen bi c'est technique dañ koy prévoir à planifier ko aménager ko nit ñi soog a ñëw dëkk moo tax ñu tek DESCOS ma ngi nuroog sax kuy campagne euh, état DESCOS liggéeyam loolu la du tere nit ñi permis de non DESCOS dafa war prévenir occupation irrégulière occupation irrégulière boko c'est seetee li gën bare ci zone yoyu la donc quelque part police urbanisme bu état waroon doxal moo sooxee bu doxoon normalement du am tram d'accueil yi ci la nit ñiy dem gis naa dagg xool. bëgg naa la laaj bëgg naa la laaj ñi nga xam ne ñoo dëkk tey ci ay euh, zone yoo xam ne day day jël ndox bu ñu dëkkul woon foofu fu nuy dëkk. ndax dañ am feneen. waaw loolu laa d'accord say au départ dañ fa warul sax dëkk. loolu laa mënul nangu man am na principe yoo xam ne ba loolu pare la kon parce que moo waroon moo seetaan loolu laa wax loolu laa loolu laa wax dañ fa warutoon sax dëkk ba ñu naan nu ñuy def fu ñuy dëkk bu boobaa loolu laa la laaj mais moom laa lay expliquer dëkk day law buy law day am ab trame d'aménagement yi ñuy def daa nga bi ñuy def Parcelles Assainies yi ñu ñëwoon ci Parcelles Assainies yi ñu daan dem daaw ñu dem plus loin bi ñu xoolee à moment donné gis ne Dakar commencé na xat dans les années cinquante mais créé des ay d'accueil c'est-à-dire qu'ils y a des mouvements migratoires de ce genre organisés ko organisé wul nak problème que l'État état sûr, euh lool décentralisation bi collectivité territoriale dañ ci rôle li ci am solo aménagement territorial équilibré. nit ñi wañ da bañ a daw ñoom ñëpp ñoo bëgg a dëkk par force biir Médina mënut a nekk. léegi ñi nga xam ni dëkk nañ foo xam ni euh, su nawet euh, amee. lu mu ndaw ndaw lu mu taw ndaw ndaw dana am mbënd léegi ñooñu nu ñuy def nguur gi dafa war a def loo xam ni dana tax ndox mi yootu leen sonal wala ñooñu dañ faa war a jóge. benn euh, programme de restructuration la ñuy tëral. bu ñuy tëral foog nga xam technique yi ni muy demee rek bu ñuy tëral programme de restructuration dañu def état des lieux identifier ña fa nekk ñëpp ku ci nekk ban période la fa ñëw ancienneté am yoon yi fan la war a nekk ku ci nekk ban genre occupation nga am famille bu nekk nu mu toll parcelle ba nga occupé nu mu toll ak yu demee noonu yëpp seet nag fan lañ leen di mën a transférer pour bàyyi yoon yoonu ndox yoonu tali ak yu demee noonu ba pare. loolu gis nañ ko fii mooy plan jaxaay ak plan tawféex ak yooyu noonu nit ki nekkoon ci ndox yi yóbbu leen feneen bokkul je regrette. Euh, jaxaay beneen programme la bu président Ablaye Wade créé ci zone ginnaaw comment ça s'appelle encore. Euh, Kër Massar Kër Massar diggante Kër Massar ak ak ak Rufisque zone boobu. c'est pas la même approche bii da ngay ñëw fekk ne ay nit dëkk fu ñu waruloon dëkk parce que day du am mbedd du am kii yooyu yëpp. nga ñëw réorganiser ko boo koy réorganiser am na ci ñoo xam ne war nañ leen jël jëlee foofa yóbbu leen feneen mooy ñi ñuy def dans des parcelles de recasement ñett ña fa toog nag day fekk duñu ñu nekk ci parti boo xam ne dana gêner bu ñu génne ay tali parce que tali sax du am dañuy génne ay mbedd génne yoonu yoonu ndox génne euh, infrastructure yi ci nekk yépp zone d'équipement et cetera ñi nga xam ne nag loolu dafa jaar seen kër ñu teggi leen teg leen feneen fexe tamit problème de drainage yi assainissement ak yooyu yëpp ñu régler walé ko ñamul laal ñu déplacer leen bu fekké ne jar na ndàmpaay ñu ñu wax leen ndampay lool moy restructuration bu ñu defee loolu ba paré créer ay trame d'accueil pour ñu bees yi ñëw moy li ñuy def euh dagg xol xolpa mooy yi ñuy def yu bees yi ba defal nañ ko boru kunun ak yooyu yëpp c'est des parcelles vierges ken nekku fa pratiquement barewutul donc yooyu yëpp c'est des zones d'accueil bo bayé loolu yep ñëw ci biir ñaay bi fi ndox mi nekk. waaye nee tam problème. Lo, lo, lo, xal xal xal ay way yu bess wala bok ay terrain yu bess te defo fay tiwo wu ndox di jaar. li ñu gis feneen rek lañ fay gisaat. ndax ZAC yi ngay wax itam looloo ko taxaw na jóg zone d' aménagement concerté ba noppi amul système assainissement loolu tam euh, safaan la. non li ma tudd Zak, du pour euh, défendre Zak. C'est pour expliquer la stratégie zone d' aménagement concerté trame d' accueil la.

structure boo xam ne day tere nit ñi implanté fu ñu warul implanté ba pare créer nag léegi en dehors de ces zones là ay parties technique bi loolu la c'est ça qu'il faut faire la planification est organisée comme ça am amul kooku c'est un autre débat si tu veux mën nañ ci waxtaan après. mais technique approche bi da nga ma laaj approche bi lan la. Mhm. approche bi loolu la. mais yéen yéen architectes yi yéen techniciens de façon globale est-ce que amu responsabilité situation inondation yi ndax tamit xam nañ ne euh, état bala moo jox fenn ñu dëkk wala bàyyi nit ñi dëkk fenn xëy na du ñàkk avis ak techniciens yi yéen a koy d'accord gars yi dem dëkk. après ngeen wëlbatiku ngeen ne. dafa dafa mel ni dafa mel ni sama wax dafa leerul. Euh, dëkk dañ koy planifier toutes les grandes villes du Sénégal am nañ plan directeur d'urbanisme plan directeur d'urbanisme mooy wax ne fii dañ fi dëkk fi dañ fi liggéey fi dañ fi defee sport fi dañ fiy def marché fi dañ fiy def école noonu lay demee fii zone d'accueil la pour extension dëkk bi ak demee noonu bu doxee noonu amul benn problème wax naa sànq ci sambi biir wax ne li sooxee te yàgg na sooxee mooy li ñuy wax la police de l'urbanisme mooy ki kiy def li mu warul def ñu tee xam wala jëlee ko fa loolu moo amul setan bi dafa bare buñ démé nak setan nit. parce que technicien yi yeen bu ngeen gisee lu jaadu war ngeen mëna wax né fi kenn war fi dëkk mu jaral leen lu né mais xeyna lool mo amul da ngeen di setan amna amna sax bo sax boo bi jaagu bu yagul dara dara dara Sandaga bañ na dañ koy toj ñun wax nañ né buñ ko toj lu nekk dégg nañ ko ci waye duñ bàyyi waruñ ko toj parce que lañ wax moy dëgg xam nga bu fekkee né Euh, processus de prise de décision waruñ ko toj moom mooy lan ma pare bu fekkee ne processus de prise de décision dañ ko biaisé bàyyi technicien expert jël décision par pare day am ci sooxe lañ dëkk mais boo jëkkee laaj ñooñu bañ jox la seen point de vue expliquer la nga ne lii laa nam nga ne non lii day boo ko namoon def defal lii ak lii ak lii mu aar. sandog buñ ko tojul nuñ koy def. pardon dañ koy réhabiliter dañ koy réhabiliter parce que sandog chef d'œuvre la chef d'œuvre la monument historique la ci ku xamul Dakar sandog mooy marché bi njëkk tabax ci dëkk bi ci fonds public def délibération conseil municipal ville de Dakar ba pare melikan bi bëgg nañ mu doon natal naataalu lo xamné suñu suñu culture la ci point de vue bob c'est un chef-d'œuvre ah, au plan mondial gis nañ leen ci ngeen ci doon yëngu. ci sandago googu. non pour expliquer rek pour expliquer né techniciens yi duñ leen faral di déglu. buñ dellusee ci mbënd mi. euh est-ce que fiñ ñu toll nii Ndakaaru. Hmm. am suuf suñu mëna Euh, viabiliser nit ñi dem tàmbale faa dëkk est-ce que desati na fi. boo nee Dakar fan nga ko yemale. <laughs> waaw moom mooy wax rek est-ce que euh, laaj bi sax moo doon est-ce xalaat tàmbalee génn tuuti Dakar waaye loolu yombul ndax ñi dëkk fii rek euh, ci banlieue bi jafe yi ñu am ngir ñëw ci seen i bërëbu liggéeykaay ñoom seen transport bi ni mu jafe. Hmm. bu nit ñi gënee pousse est-ce que du gën a jafe. li nga wax dëgg la mais problème bu warul am la. c'est pertinent mais faux comme problème c'est-à-dire que boo xoolee euh, aménagement du territoire day créer métropole d'équilibre day def de bu nekk am capacité ak potentiel u jox nit ñi liggéey ñu am xëy mu indi fa koom de même toog du cadre bi ñu war a ñu dëkk fofu la bëgg wax man way xam nga tok ak dëkk bokul ki toog xëy na ñàkk na pexe ñu dëkk li ñu soxla ñu am ko fofu voilà lool moy euh, programme planification territoriale bu équilibré lool bu amone ñepp duñ soxla ñew ci dëkku tax yi yamul ci Dakar hein yeneen dëkk yi am nañ ko lool kenn du ko soxla ça veut dire que on revient euh, euh, euh, euh comment on appelle ça on on revient à, au principe de base nit ki fa muy dëkk. foo la war a fa la war a liggéeyee fa la am loisir am fa la war a fajoo fa la problème culte ak yëpp sport ak loisir yëpp foofu la koy war amee bu ko amul dana ko wuti feneen. Mhm. loolu bu ko defoon mu wër mu wër réew mi Euh, yaakaar naa ne problème yii dana dana wàññeeku bu baax a baax. léegi nguur gi dafa taxawaloon benn programme tuddee ko plan décennal de lutte contre les inondations diiru fukki at. 2012 ba léegi ñu nekk ci juróom-ñetteelu at bi tey euh, ak situation bi ñu dund est-ce que du ne euh, programme boobu daal taxul ñu wax ndaxte saafara mbënd yi tey ji la wàllu gën a ay ndax askan waa ci ciy jafe-jafe gannaaw taw yi am. xalaatu programme boobu maa ngi koy rafetlu ndax ni ma ko waxee sànq lépp lu touché aménagement ci programmation lay dugg ci planification donc buñ ko programmer war nañu buñ ñu dawee diir ñu évaluer ko xool lañ ca doon ndax lan réorienter ko mais doo xaar ba ans yi mot wala a ngay def évaluation ci li dégg mais ne warul technicien du bu ci niveau mais technicien bu dawalee dina def bilan mi parcours rapport d'étape xool na mu li mu ko maintenant pour revenir à la question boo xoolee am na peut-être point yu kii mais bu fekkee ne dawal nañ loolu dugal programme boobu li ñu dund nii ren warul woon méttee nii mënta ñàkk xëñ na waaye warul woon méttee nii ça veut dire que am na ay réglages yu ñu war a def dañ ko deful certainement mi parcours loolu nag c' est lu lu war a am la pendant le programme pour yow euh, des na war nañ ko xoolaat évaluer ko way tamit euh, xoolaat mbir yi ba nga xamante lu melni meun mën nañ koo fàgg ba du baña euh, du meuna a buñ bu programme bu mel non yaakaar plan Orsec lu ñu wara faté la. buñ ñu waté ci plan Orsec ça veut dire que programme est ce que 767 milliards yi ñu plan bobu la jël sax est ce que assainissement Sénégal gënul ser lolu 767 milliards. wa ni nga ma ko laajee noonu mënu ci tontu man technicien la professionnel la du foog nga xayma ko waaw foog ma xayma ko foog ma xal. boo ko xaymaa rek woonu dégg nga. <laughs> incha jërëjëf Mamadou Berthe architecte urbaniste jiite euh, RES Les Verts euh, rassemblement des écologistes du Sénégal euh, di parti politique jaajëf Laaji Ndiogou Diène jaa ngeen jëf mbokk yi.